Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la bayaan bi dañu ko génne ngir leeral fi nu jëm euh, di fàttali ne ndaje mi ñuy waajal mooy ñeenteelu ndaje boo xam ne kuréel yi bokk ci OCI OCI mooy mbootaay bi nga xam ne dafa dajale réewu jullit yi te Sénégal bokk ci bokku ci rekk Sénégal waaye daf cee nekk. membre bu ràññeeku ndax moom rekk mooy pays Afrique noire bu mësa a organiser sommet OCI Sénégal kese mooy pays Afrique noire bu mësa a organiser sommet OCI organiser wu ko benn yoon waaye ñaari yoon la ko organiser kon kooku ku nekk xam na ne bokkit ci ñaareelu pays africain mooy bu njëkk sax bu secrétaire généralu OCI euh, bàyyi ko ci moom xam ngeen ne xam naa ñu bari ci yéen ñëpp sax man sañ naa ko wax xamu leen docteur Ahmed Karim Gaye ki fi nekkoon ministre des affaires étrangères nekkoon na secrétaire général u avant El Gabid bu Niger di ko nekk donc Sénégal moo njëkk a nekk pays Afrique noire bu euh, joxe secretaire général mbootaay boobu kon nag mbootaay yi nga xam ne dañu soqi ko foofu nag bëgg naa ràññee tekkiwul ne mbootaay yii waa OCI lañ bokkut ak OCI waaye ay organisation de la société civile lañu yu libre waaye nag ñi ngi soqikoo ci réew yi bokk ci OCI maanaam réew mu bokkut ci OCI sa organisation bokkul fii loolu bëggoon nañu ko leeral ñu jàpp ne àdduna bi ñu dund dafa bari ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu euh, réewu jullit yi bi ci daj lu méttee métti muy ay xeex yoo xam ne ay doomi ndey léeg-léeg ñooy reyante ci seen biir xam ngeen ne tey am na réew yoo xam ne ñu ngay fetalante te ñoo bokk menn réew ma ñoo bokk lépp waxuma la sax loolu waaye dañu jàpp ne al umal islamiya ñun ñëpp ñoo bokk benn buum bu nu sunu borom boolee takk ay ñu waroon a nekk ay doomu ndey xam ngeen ne am nay attaque terroriste euh, ku dëkk ci gox bii doo ko laajte yaa ngay dégg la xew Mali yaa ngay dégg lay xew Burkina ak feneen ak feneen am nay catastrophe naturelle yoo xam ne léeg-léeg mu dal suñ mbokk yoo xam ne xëy na ñu nga ca nekk ay jullit wala ñu nekk ci yeneen réew am na ñuy dox ci suuf di jéem a gën a tàqale jullit yi euh, te ñu jàpp ne nekkuñ ci jamono joo xam ne dañu war a tàqali ko dañu war a gën a boole suñuy doole ngir mën a jaamaarloo ak problème yi nga xam ne ñoo yi gën a mag yi ñuy jànkoonteel muy réer ak feebar ak ñàkk euh, li dal réewu jullit yi day lu doy ndax boo seetloo sama boroom li nga xam ne moom la def ci koom ci àdduna bi mën nga ne li ci ëpp ci réewu jullit yi la nekk ci seen suuf la ko dëxëñ waaye terewul boo doon wër tey ñàkk ci seen réew yi nga koy gën a gisee boo doon wër réer ignorance ci seen réew yi la ëppee boo doon wër feebar yi euh, ci seen réew yi presque la ëppee kon nag loolu défi boo xam ne daf ñoo interpeller ñun ñëpp organisation de la société des des sociétés civiles yi nga xam ne nag dañu àndandoo ñoom jàpp ne dañu bëgg a jàppale état yi jàppale OCI yi ak ñu mel ni moom ngir ñu relever défi yooyu kon xam ne bu yàggut ñu ñi ñëpp fekke nañu ko lañ ko def ca Bagdad ci Irak ah, ba ñu dajaloo waatee nag war def quatrième bi mbokk yëpp àndandoo tànn Dakar alors loolu nag di sas wu rëy ci ñun parce que yeneen réewu arab bëggoon nañu ko yeneen réewu Afrique bëggoon nañu ko yeneen réewu Asie yu am doole lool bëggoon nañu ko mais ñëpp àndandoo ne Dakar lañu koy defee Dakar nag bu ñu ko tànnee warul a jaaxal kenn d'abord dañ ne am na sécurité boo koy xool ak yeneen dëkku àddina bi xëy na ñun li fi nekk du ñu doy naam c'est normal waaye bu ñu màndaxee suñu bopp ak yeneen réew yi danañ xam ne am nañ lu rëy lu mat a sàmm ñu jàpp itam ne dëkk la réew la boo xam ne loolu c'est important ñu ne Dakar bokk na ci liñ ko tànne infrastructure yi fi am xam ngeen ne Euh, dëgg la nee naa ñun dañuy jooytu mais boo wëree Afrique gii nu wër infrastructure yi dakaar am doo ko fekk feneen sunu mbokk yu bari naar yeeg tubaab yi bu ne Afrique léeg-léeg dañuy foog ne ab gàjj la maanaam ab àll la rek buy dem waaye bu dukkee dakaar man loolu dal na ma dalati ma dañuy njëkk waaru ne mais yéen ñun dañoo foogoon ne Afrique ab àll mais Dakar gi moom moo wutewul ak suñu dëkk yi dara Euh, dëgg la nag ñun loolu warul ko doyloo dañoo war a gën a defar suñu dëkk waaye terewul am nañ quand lu ñu ñëpp nawe donc critères yooyu moo tax ñëpp insister ensemble ne Dakar la ñu koy defee e eh, ñu ànd ci ak ñoom moo tax ñu jàpp ne le 5 ak le 6 mars bii di ñëw ci la ñu koy def fii ci dakaar ci euh, King Fahd alors seminaire bi nag bu mag la ndax ay ancien premier ministre ancien ministre ay expert ay njiitu organisation civile yi gën a mag ci monde islamique dinañu ko teew euh, te li ñu jàpp mooy suñu président de la république monsieur Macky Sall moo moo non seulement ci patronagem am lañ ko placé waaye moo war a ubbi ndaje ma les 5 et 6 mars incha allah thème bi nga xam ne ci lañu ko placé thème bi musul a changé ci forum yi jàll yëpp benn thème bi lañuy jël ndax daf ñu yitteel mooy taxawaay bi nga xam ne kuréel yooyu ñu tuddoon ñu bokk ci société civile bokk ci yi war nañu ko taxaw ngir gën a boole jullit yi ñu bennoo waaye war nañu ko taxaw ngir aar kuréel yi nekk ci réewu jullit yi xam nga dafa am ñaari attitude yu am am na ñu jàpp ne OCI naam xëy na li ko waroon lépp defu ko am na ñu koy critique dañ ko war a dindi dañ ko war a def lii waaye ñun ñu jàpp ne naam lépp a waaye des ko war a dooleel waree su ko dindi des ko war a dooleel des ko war a puus mu jëm ca kanam sunu état yi naam li nuy def lépp matul bari na lu manqué lool waaye au lieu que ñu def critique négative dañu leen war a puus dooleel leen ngir ñu def lu bari ñun en tant que société civile fu état télé dinañu jéem ak suñu moyens yu ndaw defar ay dispensaires defar ay hôpitaux euh, joxe ay ay ay euh, équipement médicaux yooyu yëpp sunu mbootaay yii dañu koy def mais loolu doyul lu tuuti la waaye nag dañuy wan état yi ne ñun itam ñi ngi ciy jàpp olof daf ne euh, ndimbal na ci fekk loxol borom moo tax ñu jàpp ne ñun en tant que kuréel. dañu war a def un effort bu ko defee compléter effort u institution yu mag yi nekk ci suñu réew yi ak e, effort u état yi nekk ci suñu réew yi loolu moo tax ñu àndandoo ne nañu boole suñuy doole nañu boole suñuy xalaat weccoo xalaat bu ko defee ñun ñëpp bu àndandooyee def suñuy effort danañu dimbale état yi dinañu dimbale kuréel yi loolu donc moo tax ñuy def ndaje bi ndaje mi nag du benn état moo nekk ci kaw wala ci ginnaaw ay kuréel la yu libre yoo xam ne dañuy liggéey naam ci biir état yi mais ñoom ay organisation non gouvernementale sax lañ leen du tudde <laughs> ONG organisation non gouvernementale donc bokkul ak kuréelu état yi dëgg la nag ku ci nekk réew ma ngay liggéey état ba dina la jox récépissé dina la reconnaitre loolu dañ koy exiger mais tekkiwul ne état yi ngeen di liggéeyal wala état moo nekk seen gannaaw forum bi moo tax ñu jàpp ne ab woote la ñun dañu bëgg a woote wallu woote bi nag ñu ko jëmale rek ci waa umma islamiya ñoom ñëpp ñu àndandoo taxaw nekkandoo benn ngir fexe ba lépp luy xàjjale suñu réew yi ñu moytu ko lépp luy indi xeex ci suñu réew yi ñu moytu ko lépp luy gën a yokk ñàkk gi ci suñu réew yi ñu moytu ko lépp loo xam ne dafay gën a yokk feebar yi nekk ci suñu réew yi ñu moytu ko kon dañuy woote ci bennoo àndandoo waaye dañuy woote itam ci li nu yàlla dénk kës néew ñu partagé ko ñu bokk ko dañuy woote kon ci solidarité jàppalante bi nga xam ne sunu borom ci alquranul karim moo ñu wax engagé ñu ñun jullit na dañu war a jàppalante dimbalante ci seen ci sunu biir kon comité de pilotage bi nga xam ne mbokk yi ngeen gis ci ñi koy jiite la ñu bokk du ñuy rek parce que dañu yebal rek ne dem leen def conférence de presse bi ci Dakar waaye le 5 ak le 6 da ngeen gis kanam yu bare bare yoo xam ne teewuñu tey ci jataay yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.